madame Viviane Wade maa la gën a jaaxle man Woré Sarr ndax maa ngi nii dëkk bi yëpp wër naa ko ku ne leb naa ko fu ma yaakaar fu ne dugg naa fa ma jël lu ne ndax maa déclaré woon man maay bàyyi faalu Ablaye Wade ah maay bàyyi faalu Ablaye Wade waa Wade fu mu xamee ma dee fa waaw fu mu xamee rek war war naa faa mën a de ndax dinaa ko taxaw ba mat man bu ko ñëpp bàyyi man duma ko bàyyi man Woré Sarr dinaa ko taxawu ci nii mbaa ci ne pour lan Macky Sall ne du nangu candidature ah, ah, ah, kii Karim Wade pour lan. loolu moom pour lan danga koo war a nangu nag danga koo war a nangu. te lenn moom a ci métti mooy sama bor yi maa ngi amee ay box bor naa ba amee naa ko box bor chauffeur Tata ba maa ngi de yoreel 200000 francs dimbali indi plainte bi ne naa ko fay xaalisam. <laughs> keroog borom sareet bi du man la wax. ah dimbale ma suuf si ma yóbbu loon ba léegi fayu ma ko ah, man maa ngi bëgg a dee ak bor mënumaa tourné fenn ba xool kenn ah. ah? waaye olof Ndiaye nee na iñaan fonkul yàlla mooy maye Karim moom incha allah rabbi dina réussir. man de ci moom la yaakaar man. ah ñun ñëpp ci moom lañ yaakaar waaye nag leen laa lay xamal yaakaar nag daa am fu mu yem daa am fu mu yem man war a saa nekk naa mag joo xam ne nii tollootuma ci di di daw ci ginnaaw benn xale nag Macky moom na ko nangul candidature mënu koo nangu ah man damay dem ci Macky parce que damaa bëgg am ci 4x4 yu bees yi. wax dëgg la nga wax. man ne madame Viviane Wade damaa bëgg am ci 4x4 yu bees yi Karim Wade su mënta déposé ma dem nga def yow kon da ngay wax. yow ak lii ma lay defal lépp ci àddina nga naan tey dangay dem ci Macky Sall bàyyi Karim ak ah, yow waxee sax. sa loxo diis na. bul ma xool laa la wax bul wax yow yaay badoo la dëgg bu ma waxee dina la booleeg ay bandi ñu rey seen. ma ne ñu rey est-ce que nga. déggoo olof de. kii ma déggoo ma olof. yow yaay badoo la dëgg dëgg dëgg yaay badoo la te et puis sax indi sama mu sox nga yow jógee xam jar mu daw mu sutura de bi nga doon i badalo nga laa wax waxi sax waaw yow lay waxal dangay dem wala dimoo dangay toog wala dangay dem ma ne ba xam dangay toog wala dangay dem damay toog ah kon baax na bu ko defee Macky Sall ma lay ñaan rek nga bàyyi sama dom bi mu déposé candidat ndax xam naa ne danga tiit dong moo tax danga tiit waaw joxe ngeen loxo bi diis na